yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf Khalifa Sall ma ñu tëj ca cent mètres opposants yi ñoo ko fa gën a late bi l'observateur course bu rëy wutali kaso bu cent di rëbës moom la yéenekaay bi gis ne ci la opposition bi tollu jamono ji ku demul rëbës seeti maire bu Dakar di Khalifa Ababacar Sall rek yaa ngay waaj a dem Cheikh Bamba Dièye neexi tubaab Abdoul Mbaye premier ministre Sénégal ba woon jiital parti acte Omar Sarr ak Idrissa Seck ñoom ñëpp journal bi nee nañu demoon nañu kaso bu rëbës opposition bi dem ca kaso bu rëbës di seeti Khalifa Sall moom gisu ci dara lu dul xolu yërmande ak yëg-yëgu doomu aadama njiital parti réew mi di Idrissa Seck l'observateur nañu ba mu gisee ak Khalifa Sall ba génn ca la waxee ci kanamu journaliste yi ne Khalifa Sall détenu politique la deful dara nañu bàyyi jàmbur mu ñibbi këram muy moom Khalifa Sall di ñeneen ñi ko jàppandool ay complot ci wàllu politique moo leen yóbbu ca kaso ba ndaamal Kajoor di Idrissa Seck teg ci ne yàggatul léegi te ñu tàggu ak nguuru Sall gi fi nekke te nekke wuñu ci réew mi lu dul ay njombe ki mbusi ba dara lu baax defuñu ko fi Idrissa Seck dem na dooleel Khalifa Sall doj ko ba noppi jël doj wu rëy sànni ko Macky Sall nee na coobare ju Macky Sall am te mu lale ci wàllu politique moo bàyyi Khalifa Sall ci kaso bi ba léegi waaye nag yàlla baax na ndax Khalifa Sall mais mu gis du nit kuy xubbeeku ci xeexam vox populi nañu waaye daj na dëgg démb laata muy am fu mu mën a taxaw ba wax ak journaliste yi démb ba mu seetee Khalifa Sall ba génn garde pénitentiaire yi ñoo ko mayul fu mu yekk ak a taxaw ak journaliste yi def fa déclaration rek ñu ko du fi Idrissa Seck bopp lii la Macky Sall ak waa këram xam mu di fitna ak jaay doole waaye nag yàggatul ñun ñëpp dinañ jóg boole suñ doole jëlee ci réew mi musiba mi fi nekk enquête dina kay nañu Idrissa Seck jóge na ca noppi ga mu nekkoon ba mu demee démb seeti Khalifa Sall ci rëbës ba mu génnee wax na jëmee ci teg loxo gi ñu teg loxo Khalifa Sall ak li mu ci xalaat wax na jëmale ci wotey député yi ñu dëtmal ci réew mi mu di wotey li mu wax yi moo bi dañoo a a li liste unique ci opposition bi càkkutéefu askan wi la maanaam demande sociale le quotidien nañu Idrissa Seck ma ngay coacher Khalifa Sall li ñu naan ku la jiitu ci dëkk wan yoon noonee def démb ndax ba mu gisee Khalifa Sall li ko dénk moo di fii nga nekk boo ci bëggee génn del def sport tey liir jàppoo ko noonu rek Sénégal la mu jàppoon rëcc na ko mu di poste présidence bu commission bu UEMOA le quotidien nañu waajuñ naan Abdallah Boreyni di ab doomu ko keneen Macky Sall nangul leen loolee yëf yi tàbbi ci loxoy Niger ngir benn mandat bu ñeenti at tax Le Quotidien nañu ñaamey gère Dakar digère la Sénégal nañu ndombal tànku présidence bu commission UEMOA Sénégal ma ko yoroon jébbal na ko Niger Le Soleil nañu waaye da koy jëlaat 2021 réewum Niger dañu ko jox ngir mu jiite ngir mandat ñeenti at waaye bu jeexee ndombal tànk li dafay takke wàcc tànkub Sénégal doomu Sénégal bii di Mamadou Ndiaye journal bi nañu moom la ñu teg ci bopp conseil régional d'épargne publique Sud ñàkk na waaye gagné na ci yëf ci yanaanam la ñàkkee yéenekaay bi xëy nañu ko leeralal ponk par ponk ponk beneen ci laa jëm ak direct info Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général de mu njëkk moom Serigne Bass Abdou Khadre na bu baax baax dogu gi taalibe wane ci liggéey bi fondation Servir le Sénégal liggéeyati nañu lu rëy bi leen observateur première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall indi na ci réew mi machine buy dépister cancer princesse la Salma bon Maroc moko fondation di fondation Salma ñoko ko Mariam marie première dame bu Sénégal ak fondation di servir le Sénégal ci xeex bi ñuy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus n'est Missa Thiès daan bërki démb jugaat na ci yene kay. ci l'observateur mën ñu fa du lepp la ñu mën wax Limu wax ci les échos mom Ness modi di ab du ko gëna metti defet bi mu am digëm ak Sa Thiès ñaari jabar yi mu am mom Ness mu né defet bi metti na len lool waye ñing ko koy muñlé. ki ko teg nakar wi di Sa ni ci xët mu libération il fallait madame daan nes ngir mëna vengé wul Ama Baldé ci l'observateur mu ne ñun li fekk daanu ma Eumeu Sène ak Bombardier fayul sama mag Balla Gaye 2 su ma tëddee du ma nelaw sunu lamb nañu lamb ji ñëppi xaar rawatina amateur yi moo di combat booy Niang numéro 2 ak Sa Thiès GFM entertainment noppi na ngir tëgg ko te it Balla Gaye 2 nee na ku leen jox avance ñu jël